salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di nuyu seen euh, structure bi di Salam Vision di nuyu ma fi fekk ñëpp di jiital ci nuyu euh, suñu responsable monsieur le maire euh, le directeur des domaines du Sénégal Mamadou Gueye di suñu frère di suñu xarit mais tamit di suñu responsable politique di suñu mentor Euh, di nuyu tamit ñi nga xam ne tey samay euh, sœur dañu nga xam ne ñu bokk waar yi bokk liggéey bi di ci ànd di jàppale monsieur le maire Mamadou Gueye euh, di leen nuyu bu baax donc am ma gauche honorable Adja Dieng Mbacké à ma droite ñu am fi la présidente Ndeye di nuyu ñu fi teew ñëpp. ak Modou Gueye. sa diggante ak Modou Gueye. Hmm. lu laxas. lu ko laxas ak fi nga xamante ni. Eh, sant yàlla rek sant yàlla ndax yàlla eh, dogal na ñu def ci politique eh, mën nañ ne fukki at ak ñaar bi le président de la république Macky Sall di tàmbale ñu bokk ci ndaw ñu njëkk ànd ak moom fii ci département de Pikine ñu ànd ci aussi ak responsable yu bëri wante yàlla dafa dogal en 2002 bi président désigné ne Mamadou Gueye moom la bëgg mu nekk maire ci Thiaroye Kaw ñu ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay responsable nekk jiite caare kaw euh, ñun ñëpp ñu nangu dogal boobu ànd ci ak moom mais bañ ci ànd ak moom tamit euh, mënoon nañu ànd ak moom dañu def ko maire ba pare ñu rocceeku ñu nekkaat ci leneen mais dafa am ci ànd bi beneen euh, xar kanam bi ñu gis beneen nit ku wuute ci ñoom doon gis ci politique loolu moo waral suñu dogu ñu jàpp ni kii au delà de maire bi ñu ànd ak moom tey suñu avenir politique yëpp dañu ànd ak moom ndax euh, gis nañ ci moom jikko yoo xam ne man day euh, ci politique fukki at yi ma yi ma def gisuma ko ci responsable politique ci yër mu am ci doomu aadama ci yar bi ko yàlla may mais tamit ci jàppale ba nga xam ne mu ngi koy jàppale doomu aadama euh, loolu bokk na ci li nga xam ne tey vraiment ñun gën nañu motiver pour ñu ànd ak moom ànd ak moom nag jiital ko mu nekk suñu kanam ñu ànd ak moom di ko jàppale gauche di ko jàppale droite te jàpp naa ne tey jii Mamadou Gueye ku bëgg a dal ci kawam balaa ngay àgg ci moom ci Mamadou Gueye mooy nga jaar ku a jaar ngay jàll ci kanamu mbé kii Adja euh, honorable Dieng Mbacke ngay jaar euh, ku bëgg a jaar ci kawam ku mel ne mbéy ñoom ñii ñii ak ñeneen ak ñeneen ci ñooñu ngay njëkk jaar loolu nag. dafa nekk loo xam ne tey kii nga gis ni honorable euh, Diendake la au conseil euh, conseil économique social environnemental la nekk maanaam ci jigéenu ji Pikine yi gën a ñu gën a ràññee responsable yi gën a rëy suñ ci jàppoon ñett moom ñett ñooñu ci la bokk tey li ma sentir gis ko ci Modou ba am ak Modou moom loolu la gis am ànd ceeg Modou kii nag bi Modou di tàmbale politique ca njëlbéen la depuis CCM moom moo ànd ak Mamadou Gueye jiite ay jigéenam donc tey daal mën naa ne la Mamadou moom wax dëgg yàlla la ñu gis ci politique ci responsable politique en tout cas man de dama gis moom gis ma ko ci kenn loolu moo tax nag ñu jaral ma lu nekk lu nekk vraiment di ko ñaanal yàlla rek ndax ñun suñu ànd ak moom du mairie bi Dakar kaw du demeen suñu ànd ak Mamadou Gueye maa ngi koy wax gars yi te dama bëgg yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel il sera le président de la république du Sénégal un jour ñun Macky Sall la ñu jëm ci politique te bu doon suñu sago tey mooy nekk suñu candidat bu doon suñu sago moom mooy nekkaat candidat en deux mille vingt quatre ndax constitution permettre na ko mais nag euh, wax ja moom tey am na lu mu waxoon sénégalais yi euh, ngoram may ko na mu def leneen loolu nag ñun dañ koy nangul ndax nag suñu njiit la te ñu ànd ak moom ci lépp bu doon suñu sago ñun moom mooy nekk suñu président de la république moom mooy nekkaat candidat mais moom yéen la dogal du tey ba tey. Uh-huh. ñun moom rek ñu déglu. ndax moom mooy président parti bi. moom mooy uh-huh. président benn bokk yaakaar. Uh-huh. moom suñu kàddu yëpp moom ci kàddoom da ñu bàyyi. tey bi ñu woowoon tey mu ne Mamadou Gueye Mamadou Gueye mooy suñu candidat. ñun loolu li ñu bëgg de ñu waa Pikine. ak waa Sénégal ji a ndaw ñi. macha allah ñun ñëpp bu waxoon keneen tamit. keneen kooku la ñuy àndal. macha allah donc en grosso modo. ma la bëgg a wax mooy. candidat yu président wu ñu mooy suñu candidat mhm. moom la ñuy xaar te incha allah yàggatul mhm. dina ko dina ko désigner booba macha allah ci ñaari kàddu rek mhm. suñu honorable Mamadou Diop suñu Adja Ndeye Niang suñu sa soppe bi toog xaw ma sax suñu tudd li ñuy ñëpp daal li ñuy sëñ Fallou euh, sëñ Fallou dafa leen ñu baax parce que lii la ñuy wax ci déwén day xool lu rafet mu di ko def ndax mënoon naa ñëw xool jotaay bi def mhm. amoon à chaque fois mhm. à chaque fois day bëgg ñuy wax ci mën na dugg lu baax mhm. ndax dama naan ànd dafa métti nit boo àndee moom da ngay ñëw fii man jikko boobu laa yor kii ñëw politique am loolu muy nit ku baax it taxaw chaque jour bi nga xam ne man ci moom la jógee parce que man lu ma xasee faral nit ki moom nit ki laa faral bu jëlee xeex damay xeex bu jëlee xuloo damay xuloo wax naa la ko ba ci baax bu ma duggee lan ñuy xafaral li may wax. Mhm. ndax fii nañu fekk na ñu ànd ak président Macky mhm. Mhm. xeex M23. ah Macky Sall duñ woo duñ woo. duñ sedd duñ sedd jox ñu cër. waaye moom mënul. man li ay milliards. tëral na ko ma ko liggéeyee amal ko sama bopp. te moom it ñëw baax. dama ko naan am na jikko yu may jàng ci yow. wàcce boppam oyof. am na kanam yoo xam ne boo ñu mënee dëkk Modou Gueye Modou Gueye ku baax. macha allah ku ñu xam ne département Pikine moo gën a nekk ci politique. Modou mm-hmm. Gueye ba am fandam nga xam ne jàmbaar mm-hmm. ma ne dama koy ñaanal yàlla rek. Mm-hmm. yàlla yokk ko. macha allah man bu ma déggee noonu chaque jour dama naan ko candidat. macha allah boo nekkee candidat da ngay doon président. macha allah. si yaram may na ko ko. jàngam may na ko ko. jox nit cër may na Uh-huh. kon ma nëbbu uh-huh. bu ma ñëwee fii ci këram a uh-huh. loolu sama fierté la Touba bu ma doon tuus sax ñëw bi dee këram bi dinaa fi teg sama tànk parce que moo ma ko lebal macha allah ndax yëg na ma safoo na ma faale na lu coow li bari bari ñu bokkum li ma ñëwul nag bàyyam dagg sama bay dagg macha allah bala maa laax jaay nag laax lekk bokkati ko ma bala maa jàppale kenn jàppale ma mu jigéen ndax bu ñu la naa ci fuuti ñooy ànd ngumba ngeen taxaw nag ku lépp <laughs> xaar asamaan si daal. waaw li may dénk population sénégalaise c'est que dama leen di wax rek ñu gën a ñu gën a dal réew mi dafa am fu mu toll foo xam ne euh, ñun ñëpp bu ñu xoolee da nga xam ne du réew mi moo fi newoon Sénégal dafa am beneen étape bi mu toll tey ci développement Sénégal am na jéego yu sori yu mu am te loolu nag dañ ci remercier le président de la République koo xam ne nag ñëw na te benn plan Sénégal émergent am ñu gis ne vraiment mbër ñu Sénégal bi ci jàpp naa ne ñun Sénégal yëpp tey bu ko neexoon tey day ñëw ne candidat xëy na dëkk bi ñu ñu dañ yëngatoon yooyu mais dëkk bi dal moom préféré na moom mu rocceeku mais jàpp naa nag tey li ci mën a nekk rek ci li ñu jëm muy élection dañu fexe ba vraiment euh, indi ci réew mi dal nit ñi dem ci jàmm euh, te xam naa ne Sénégalais yi moom xam ne li ñu def te kenn di ko dëgal te ñu kooku lañ koy jox te yaakaar nañu ne ki ñuy wóolu daal mooy ki président Macky Sall wóolu loolu bokk na ci suñu dëgg-dëgg mais li ma la a wax nag en gros uh-huh. man bu doon sama sago uh-huh. Macky Sall bu fi jógee rek Mamadou Gueye moo nekk président de la République uh-huh. bi tedd nga xam ne ñoo ma ci mel ni honorable Mamadou Diop ak honorable Diembaki ñoom nga xam ne seen taxawaay kenn nattableel ko ñu nekk ay responsable yu am solo mënoon na ber seenub dal waaye ñu ñëw dalal si Mamadou loolu dafa am lu bëri lu muy tekki ndax mënoon nañ ko ne nag ñoo ko jiitu ci kër gi comme ñoo ko jiitu ci kër gi moom moo leen di topp waaye ñoom jiw ba Macky Sall joxoñoo ba léegi ñoom dawuñu daayuñu ñu ngi ci ginnaawam rek di ko jàppale di ko puus kon tey jii lépp lu mu am rek ñun ñu joué nañ ci rôle bu am importance ñu nuyu ñëpp nag di nuyu soxna Lo di nuyu ñoom sëñ Fall bàyyi bu ñu kenn Euh, sama digganteeg Mamadou nag dama laaj lu am solo loo xam ne dama ciy sawar ndax sama digganteeg moom léegi dafa jiitu politique mhm. maanaam politique mhm. nekkatu suñu diggante mhm. dañu dem ba nekk famille dañu nekk ay frère ak ay sœur politique doxatul suñu diggante loolu moo dox sama diggante ak moom moo tax ak affaire politique dañ ko jënd teg ko ne ndax tey bi su demee ba di yóbbu màkk boole maag magam xam nga am na lu bëri lu muy teg macha allah macha allah tey wane ci biir famiyam la ma boole mhm. jàppeetuma jàmbur ma tam jàppeetuma ko jàmbur loolu mooy sama diggante ak ñun mhm. te famille nag ku bokkam mhm. lu na daal lu mu lu mu am waaw lu kenn mënta wax la kon xam nga jaxloo la a doon Modou tey jii bu doon candidat day gagné réew ndax liggéey na ko fi. macha allah ñu ngi sant Ndeye Ndeye ñu nag ndax mënoon nañu ñëw. Mhm. bu ñuy siis waaye Modou daa ñëw biir affaire nag ñu yaatal ko. uuf ko ndax boo ñëwee ci parti da nga fay am ndey. macha allah am fa bàyyi am fa mhm. mag am fa bàjjen. macha allah Modou ñoo joxe cër boobu. Mhm. bu ñëwee nit ak lu mu am am xam-xam. ñii dina siis bu ñu ñëwee duñ ko yaatal. ndax parti bi nag dañu ko jóg. waaye Modou dafa ñëw lu ñu wax mu ne affaire. ñu mm-hmm. wax lu ñu jox leen ñun lu ñu wax lu ñu jiite leen ñun mm-hmm. boo ko may lii mu ko may ñoo nit xooluñu gisuñu yéeñu ndax bu ñu xooloo xëy na dinañu ñi kon loolu kay li may wax rek kenn mënu ko téye parce que ñun du taxaw ndax moo ko lebal ñun mm-hmm. kon dañu naa leen bàkki moo xam ne sama doom jël li ma liggéey ma ko gën ndax man lu ma waay defal cër dama ko gën a macha allah man lu ma waay defal cër loolu daf maa jox cër fonk ma yaa ji sekk la sant mu ñëw na ma yaay sama yaay gis ni tey macha allah parce que yaa ko mérité am nga yaay dinaa la boo rombanti la. parce que yaa ko mérité léeg-léeg du ma ku dundal loolu lu mu laaj dama koy def. macha allah man daal li may ñaan ñëpp ñu fi ñëwaat dégg monsieur le ministre. directeur bi nga demee. ci suñu gouvernement bu bees bi. macha allah directeur bi nga ci suñu. macha allah man maa ngi su xewle woon ca ndax euh, je pense que Ngoumba Ngeul depuis bi ñu xamante ba léegi mhm. muy Kazu Rajab bi muy màggal mhm. dama ne li mu metti metti man sama jëmm lay teew ndax dama gis ci moom mhm. fu mu taxaw su ma gisee day am mbégte loolu nag boo ko santéere ci doomu aadama loolu yéen itam day fexe ba moom fu mu taxaw rek nga taxaw fa loolu bi wane nekk ànd bu sincère boo xam ne nag dara lalu ko ànd boo xam ne ànd te yàlla tax gis moom yoo xam ne mën na jëriñ Sénégalais yi mën na jëriñ doomu aadama yëpp. loolu moo tax ñu ànd ci ak moom. macha allah euh, donc euh, en grosso modo pour uh-huh. loolu rek ñun ñu mën a xam loolu. Uh-huh. Euh, di wax ne moom Mamadou Gueye. Uh-huh. ñun référence la ci ñun. référence la ci ñun. macha moom lañu ñu àndal tey moom la ñu àndal suba moom la ñu àndal ginnaaw suba. macha allah donc ñu màggal moom bu xewlee. jàpp naa ne du ma ne ku nga gis daal gis Mamadou Gueye. mais xam naa ci dara daal fu mu teew daal boo mhm. gisee ay responsable mhm. Mamadou Diop moom dañ ko ràññee ci responsable yooyu macha allah ndax loolu mooy sama sama sama dafa bëgg te man moom tey laa def sama responsable en réalité mhm. su weesoo le président de la république moom Mamadou Diop mooy sama responsable macha allah ndax nag locomotive otrain kenn moo koy dawal te jàpp naa ne dawalkat bu baax la ku mën a dawal la. macha allah donc toog ci wagon boobu nag. Mhm. man jàpp naa ne mooy wagon bu gën a wóor. macha allah te bu doon sama sago wax naa la a tey. Mhm. Macky Sall. Mhm. le président moo ma liggéey moom e désigné comme le candidat de Benno Bokk Yaakaar. macha allah ñun agressivité bi xëy na mën na caa. te yooyu ni fu mu toll. ñoom xeex laa xuloo. ndax suñu bi bu ñu wootee dina la. ensemble bi ñu rek la mën a mel. ndax dëkk bi mu toll boo loolu laa ni a wax est-ce que am na ak xeet mën na defar loolu. ah waaw mais ci la loolu ñu toll parce que ñu mu ne waa mhm. mhm. mhm. xam nga bu ñu dafa moom monsieur politique. ñun ñu ci yàgg nañ ko ci dimbali. moo tax lépp lu ñu xamoon rek duñ ko ko nëbb dañ koy dañ ci ay loxoom. jiital ko nag doyloo ko te fàkkal ko nag yoon bi ba nga xamante ne bii du fakkasalu macha allah ndax bëgguñu dara lu koy fakkasal mhm. ku ko làmb rek daj ñu mhm. balaa kenn yegg ci moom jot ci ñun ni ko honorable bi waxee léegi mhm. ndax tey jii fépp foo xamante ne bii rek gàllankoor la wala doon wala tax ne dinañ fa dugg ba pare soo a génn ñun dañ ko dañ jiital ko ba pare doyloo lu mu def ñun noonu la pour ñu dugal ñu dugg su mu génn mu génn candidat mooy suñu candidat moom mu dooleel Macky Sall ànd ak président Macky Sall ñu tam ñu dooleel ko ànd ak moom ci loolu fépp bu ñu joxañ rek foofu bi daal du problème Ousmane Sonko ndax moom jàng di woote violence président Macky Sall kenn mësu ko xam ci ay violence moom la woote macha allah li ci moom rek gën bi ñuy gën li moo tax ma dugg ci ci yaram ak tegginam ak dalam yéen yoon la ñu jàngal mais da ngay toll foo xamante ni ah buñ la dóoree da ngay fay waaye ku xam APR xam ne mm-hmm. dañuy jëlee nag ci dal lañ ko jëlee mm-hmm. xeexuñu xulóoyu ba yàlla jox ñëwee maanaam mbir day toll foo xamante ni ah buñ la dóoree da ngay fay loolu tax tool yi bari dernier kàddu yi ah, ah di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di ñaanal dama dugg rek liñ fii ñëwaat kàtt la jëf ah mu bokk ci wér monument bu bees bi rek macha allah te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def màggal bi macha allah ko yàlla rek mu gën a dal ndax ak dalam bëri na ko may yaramit bëri na lim ko may kon dañuy ñaan mu gën a dal gën a yàgg gën a humble parce que nag tey jii mënoon naa am ni ne boo fa tolloo ko ñu koy ñaanal yàlla yàlla lafal ko cat te musul ko ci seytaane ba nga xamante ni bii fépp lu mu bëgg a def dina ko def ndax bu ko yàlla bàyyee comme xelam rek gën nañu ne fi mu teg tànkam du ko teg kon yaram boobu ak dalam boobu dañ koy ñaanal mu gën a sax gën cee nekk nag ba lépp loo xamante ni bii nit dina ko am mu am ko ndax gis ñaanal yàlla rek te naa ni koy ñaanal gudd fan kon gudd fan lañ koy ñaanal soo gisee lii nag uh-huh. mu am yëg-yëg la nga dimbalee doomu aadama la uh-huh. ak cër bi ngay jox nit ndax dafa mën a joxe cër uh-huh. ku mën a joxe cër nag dafay am cër ku joxewul cër doo am cër da moom dafa fonk doomu aadama jox ko cër kon looloo ko may lii mu am ñu ñaan yàlla mu gën a yokk te xam ne nag dese na lu bëri loo xam ne du mayagul te nag suñu kanam di ñëw incha allah jërëjëf kaddu gi waaw di ñaan rek ñu ñu ñu ñaan jàmm ci Sénégal ndax bu Sénégal amee jàmm ñu lépp ñu am jàmm kon nañu ñaan jàmm jàmm ci la lépp xaj. macha allah bu jàmm amee rek. macha allah réussir kontaan nañ sa baax a baax.